ñu di ko wax ashura di ñaari fan muy taasuwa ak ashura bis bi ñuy lekk cere yi moo tudd taasuwa lendemain bi tudd ashura il faut ñu xam ni ñun jullit ñi ñun jullit ñi sunu premier janvier ak sunu janvier mooy muharram weer wii nu nekk ñun jullit ñi mooy sunu premier janvier bésu tamxarit mooy suñu neuf janvier le lendemain mooy suñu dix janvier calendrier jullit weer wi ñu ciy tuddee muharram mooy janvier bisu tamxarit li waral ñuy woor Ashura mooy lendemain Tamxarit Seyduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dafa dem Madina mooy bi muy gàddaay jóge Màkka jëm Madina bi mu yegsee Madina moom yonent bi mu gis yahud yi di woor te koor jotul ay yahud lañu yonent bi laaj leen ni leen waaw yéen yahud yi lu waral ngeen di woor bis bi yahud yi tontu ko ne ko ñun ki nu amul ku dul moom muy yont yàlla Muusa ci bis ni ki tey bis bii anniversaire bii la ko yàlla muccale woon ci Firawna moo tax bu dellu see dañ koy woor yonent bi ni leen ah kon yéen Muusa moo tax ngeen di woor bisu tamxarit ñu ne ko waaw yonent bi ni leen man maa leen gën a yey ci Muusa kon manitam itam danaay woor bis bi moom yonent bi ndeysaan di woor bisu Ashura mooy lendemain tamxarit waaye am ci saxaaba yi ku ko wax ni ko est-ce que doo changer jour ndax ñun ak yahuud yi buñ ko bokkee ëllëg mën na indi ñagas-ñagas yonent bi ni ko bu déwénee incha allahu rabbi su ma fi yàlla bàyyee même neuvième jour bi danaa ko woor avant at mee jeex ba yonent bi lam bëggoon di yegsi mu faatu ci diggante bi moo tax woor bisu woor lendemain tamxarit sunna la parce que yonent bi def na ko buñ la doon résumer lu waral tamxarit ak ya ca xew dañu lay wax ni la yonent yu bari li leen yàlla defal bis booba la tombeel mooy anniversaire pour nga dégg ma yonent yàlla aadama ci la amee ndamam lu réy li ca aljana yonent yàlla aadama yonent yàlla nuux mi ngay dégg ñu naan yàlla da koo muccal ca gaalam nga parce que daawoo ay nitam at yu baree baree bari moom yonent yàlla nuux gëmuñu ko yàlla ni ko boo xëyee yettal gaal nga yëg ci yàgg ñi la gëm ndax damay alag waa dëkk bi suba te mooy danaa taw ci seen kaw taw bu dul arrêté inondation bu dem baray ay bakkan danaa ko amal génnal dëkk bi yàgg ñi la gëm yonti yàlla noox dafa amoon taawam bu góor bu ñuy wax kanaan kanaan gëmul woon yàlla toppul woon noox noox woo ko ba mu ñëw ni ko am na lu ma yàlla xamal te bëgguma mu fekk la fi sama doom nga irkab maana wala takun maa alkaafiriin nañ dem kanaan booba sori na ci wàllu ñàkk gëm mu tontu noox ni ko sa aawi ila jabalin yaasimu nii min al nee nga yàlla day taw ëllëg pour alak dëkk bi gisoo montagne mii ni mu toll bu taw bi soobee ma dem yéeg ca foofa nag yàlla dafa gëdd yontu yàlla noox ne ko arrêtel sa discussion bi yàgg kii nga naan sa doom la innahu laysa min ahlik kii du sa doom kii du sa doom <laughs> ndeysaan moo tax ñuy wax ni am na koo xam ni doomu ruux la judduwul ci sa deret mais moo gën a nekk sa doom ka doom ji nga jur parce que yàgg doom ji nga jur bokkoo leen gis-gis da ngaa jaar nii mu jaar nii